musta liggéey liggéey bu ñu toll bëgg ko waaw ci kat loolu nag xaas yàlla ko def alhamdulilah jërëjëf Mbacke jërëjëf kon nag euh, lii yéen ci pàgguteefam ngeen bokk man ci ni ma ko gisee rek waaw yéen ci pàgguteefam ngeen bokk waaw du defal leen ci rek ci bàgg lépp moom moo jëkk moo moo mujj waaw waaw <laughs> na mu na mu na mu sose woon liggéey bi rek ba mu koy sosee ni la ni la woon li la fàgg fàgg fàgg ni la fag woon lii waaw ni la leen fàgg woon yéen ñii ndax la kulli xale nag mbir bu nammee bu bu bu nammee sotti te na ma sax il fokk ci xam-xam lay lay juddu ci ci xam-xam lay dund kon loolu. yéen loolu mën na ne. Eh, da ngeen ko jóge teg ko seen bopp. kon loolu pàggu pàggute pàgguteefam la. waaw kon nag ni mu leen ko waxee rek mën nañ fee faral. waaye daal am daal ngeen suñu xel. doolu ngeen suñu yaakaar. dëgg booy boo ngeen ngeen góorgóorlu ngeen sant yàlla. Eh, te góorgóorlu ci seen kanam bu baax a baax. te xam ngeen seen seen seen tubaab moo yor seen wàmbat. waaw waaw góorgóorlu leen cere si ci nekkal ko ci li mu bëggoon. ndax loolu rek lañ ko mën a fayee waaw. moom noppi na ci nun ndax nun am nañ tawfeex ba noppi bi nu suñu borom booleeg moom rek mu gàttanul nu boppam am nañ tawfeex moom moom noppi na ba noppi li nun nag noo ko deseel li ko deseel mooy liggéeyal ko liggéeyal ko itam ci nekkal ko ci li mu bëggoon rek ci la ko mën a liggéey kon nag na ngeen góorgóorlu bu baax seen kem kàttan rek ci nekkal ko ci li mu bëggoon li mu bëggoon a weesuwul bëgg boromam rek te nekk ci moom bëgg boromam rek nekk ci moom te bëlewu ko woon ak dara boromam boromam wëlbati ko nekkal ko ci moom nekkal ko ci anam gu mu mën a doon ni ngeen ko gisee rek moom dafa jug wan gën a adduna nekk ci boromam rek ba boromam fam adduna jëpp taxal ko ci gën a loolu ku <laughs> kon nag ku def loolu ku ko nekkal <laughs> uhuh. te góorgóorlu ci loolu mu nekkoon. noonu rek lay demee. boo nekkee ci suñu borom. mu nekk la ci sa sa bopp gën la ci fuuf nag. la ci kon noonu mbir noonu la ñu nan góorgóorlu ci fas yéene liggéey Sëriñ Tuubaa. incha allah waaw li nu bëgg. tey ak ëllëg li nu xel na tey ak ëllëg li gën ci ñun te xamuñu ko lépp mi ngi ci biiram. alhamdulilah waaw nan góorgóorlu ci fas yéene liggéey Sëriñ Tuubaa. ni nga xam ne moom ni mu ko defee. Mm-hmm. dafa am mbiram lépp. Mm-hmm. da koo séddale ci ñaari anam mm-hmm. te muy lenn day fab lépp boo ko xoolee diggam a boromam foofu jaamu la koy tudd jaamu yàlla koy tudd moo lépp jëmale bi foofu bi lay tudd waaw kon nag nun itam xas na nekk jaam ba noppi toogal suñu borom bind na nu ngir nu jaamu kon nag suñu mbir dëgg la bu ñu ko xoolee suñu ngir suñu borom jaamu la fay tudd waaye nag jaamu googee dañ koy fabaat ak liggéeyal boobu sëñ sëñ Tuubaa doon liggéeyal yonent bi nun nu boole pëste boobee jaamu googee ak liggéey yonent bi lépp delloo ko ko liggéeyal ko ko moom loolu moo nu fi gindi loolu moo nu fi gindi moo nu gindi ci loolu ndax moo ne moom moo ne moom di ngi ci jaamu yàlla ak liggéeyal yonent bi kon nag nu mën na nekk ci jaamu yàlla ak liggéeyal ko jërëjëf jërëjëf wallaahi wallaahi muy lu wér mm, kon nag noonu rek la mbir mi nan góorgóorlu bu baax a baax a baax yéen nag daal ngeen suñu xel uh-huh. doon la ngeen suñu yaakaar alhamdulilah alhamdulilah na ngeen daal am si am xel mu dal uh-huh. gannaaw ba ngeen sant yàlla ba noppi sant sant sëñ Touba te fas yéene ki ci biir na ngeen xam ne ni ñu leen ko waxee lépp ngi ci biir li ñuy xemmeem ak li ñuy bëgg tey ëllëg ak gën ci ñun te xamuñu ko lépp ngi ci biir loolu mu ngi ci biir liggéey sëñ bu baax a baax nun daal noo ngi sant yàlla te te amul amatuñu génn bëgg loolu la gën sëñ képp ku mën a doon itam ndax gannaaw jullit lu mu yéene boppam da ko war a yéene morom ja hmm. kon nun itam loolu rek la ñuy bëggal nit ñi. Mhm. li mu bëgg suñu bopp rek la ñu bëggal nit ñi. Mhm. dinañ bëggatuñu dara lu lëggal seen tubaab. waaw kon nag noo ngi ñaan suñu borom. Mhm. barkib sëriñ bi. mi nga xam ne moom soxlawu am lenn loolu moom tey àggal la. mu dimbalu nu boppam may nu kàttan eggale suñu yéene ci liggéey sëriñ Tuubaa amiin waaw waaw jëf li ma ko waxee rek ma na fee fanaan te du jeex waaye nu tëgg ko ciy kàddu rek eh, eh, ni ko waxee ci Ablaye itam mhm. eh, ginnaaw moom seral na seen xol mhm. ngir liggéey sëñ Tuubaa bi ngeen di def mu seet seen xol defal ci li ngeen ci bëgg mel na ne kon sëñ Tuubaa rek la ko defal kon loola moom sëñ Tuubaa nga xëyal ko nga benn ko benn waxtu képp mën naa defal mbirum jàmm bi mën na ko defaral léppam waaw bu dëggoo te sell bu dëggoo te benn waxtu képp mën wala lu ko yées sax ku ko liggéey sëñ Tuubaa te mu dëggoo te rek mën na la defal sa mbir tegal la waaw kon nag noo ko ci sant bu baax ginnaaw sant ngeen ko rek kii bi. te nga wax ne defe nañ ko ni waree. def ci seen yitte jumat sëkk. ngeen sant leen. ñooñu boobu li li li li li nga leen bëggal rek daañu ko am. ci gàttal. alhamdulilah waaw waaw waaw kon ngi sant bu baax. mag ñii fii na nga xam ne ñoo fi nekk itam. te ñoom bàyyi seen lépp soxlaatuñu dara lu lëggal sëriñ bi rek. loolu ni ko waxee rek. Eh, dana nu dolli rek nu ngi leen dolli sant bu baax. te nag ñu amu wér. gën fee yàgg. waaw gën yàgg bu baax a baax ndax mag noonu ñu ko ma nu ko nu ko am na kajoor daa waxee mag mën naa bëtt bi ci dëgg mhm. noonu la demee mag moom nan leen ñaan mag noonu suñu magi taalibe yi mhm. ak fu mu mag magum taalibe bi mën a nekk mhm. euh, nan leen ñaanal ñu amu wér te yàgg fi lool waaw ndax lu ñu fi gën a yàgg rek mu gën a baax lu ñu fi gën a yàgg rek mu gën a mu gën a baax waaw yàgg ne ci lu baax moom lu mu gën a yàgg rek mu gën ci